liggéey bi waaye tey nag ñu ñëw fii daje fi ak suñu benn mbokk bu ñuy wax euh, Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Diouf euh, ñu miinoon ko ci yeneen i facette tey nag ñu daje fii ci biir waxtaan rek ñu yëg ni am na yeneen i xam-xam yu mu am ci biir surtout nag ci wàllu xaru tabaski euh, ñu ne ko nag vraiment waxtaan wi ni mu amee importance nañ ko tas àddina yëg ko Euh, tey nag ñu daje feek moom njart ko pour ñun ñëpp ñu bëgg waa àddina xam xar yi nga xamante ni moom lañuy tabaskee ñu xam njariñ yu bari yu ci nekk ñu bëgg koo waxtaane ak ki nga xamante ni mooy Cheikh maam Cheikh maa ngi lay ziar. ah delloo ziar di wax salaamaaleykum ñu ngi sant yàlla julli ci sangu-sang yi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di sant sunuy wayjur di leen sant yéen presse bi nga xam ni ñoo bokk lépp mhm. Euh, tey ñu ñëwoon fii bëggoon euh, ñu waxtaane li nga xamante ni mooy njariñu xaru tabaski premièrement ñu bëggoon xam rek fan ngay tàmbalee ak njariñ yi nga xamante ni moo nekk ci biir xaru tabaski lan nga ah, ci barke mag ñi <laughs> tey li nga ngeen ma njatt ngeen ma. Mm-hmm. waaye li am asuk néew rek ci barke mag ñi génnee ko liñ ci mën a génnee. Mm-hmm. li nga xam ne sañ nañ koo génnee. ak li nga xamante ni si sañuñu koo génnee ndax dëkk bi dafa am kilifa dëkk bi dafa am mag ñu fi boof dëkk bi dafa am mag ñoo xam ne li ñuy bëgg a wax dañ ciy am seen teraanga moo tax du ñu sañ a génnee lépp mhm. dañuy sañ a génnee as tuut rek ci li nga xam ne yéen ko moom ci ñun mhm. li ñu moomal seenu boppit ñu téye ko mhm. li mag ñi moom ñu bokkook ñoom euh, damay seetaan si tele yi wala ngay dégg nit ñi di waxtaan ci njariñu xarul tabaski ci barke mag ñi man li may wax saasu ne rek yàlla ñu yàlla fayal Cheikhouna Tidiane ñu ngi jub tabaski tabaski du lu barkeel tabaski du loo xam ne dafa am njariñ ku nekk yaa ngi daw di wuti xar waaye ñun ñi nga xamante ni sii nii ay borom kër yu ndaw lañ du duñu ay borom barke fit na daf ñoo dikkal te ci barke mag ñi daan na am loo xam ne daan nañ ko jëfandikoo balaa ñoo wax sax am nga xar wala amoo xar yaa xool nag fu la neex ñu njëkkee ci xar mi. kon waxtaan wi dañoo war a mën a démarrer balaa ngaa jënd xar dafa am yoo xam moo war a jiitu. comme yan comme yan maanaam. <laughs> damay waxtaan ak sama benn kilifa ndeysaan hmm. mu may may lu bëri. Hmm. mu ne ma Cheikh Tidiane bis boo tolloo ci wut xar ma ne ko ah. mu ne ma yenn saa yi ngay dégg ñu naan diw dafa xarañ diw xarañul. Hmm. sunu moo xarañ. ma ne ah, mu ne ma dangay jël turu sunu borom bi ñuy wax yaa xaqiim. mooy aji xarañte gi ma ne ka ah, mu ne ma nga tijjee ko faatiya nag loo gis am na bunt sama xel dem ci sama turandoo borom baaun tasirun ma ne ko ha ah. Cheikh Ahmad Tidiane Cheikhuna Tidiane al maktum al xutbul awliyaay ma ne ko ha ah, mu ne ma dee ko tijjee lañ ko war a tijjee mu de allahuma bi xaq bismillahi rahmani rahim wa bi xurmati wa bi jabarooti wa bi xaybati anta muraani dunyaaka bi xatmati wa sunu ijabaati bi sirri ijabaati ya rahman rahimin def tomb baa muy bismillahi rahmani rahim mu ne ngay wérd yaa xaqiim fukk ñeent muy quatorze ci kattanu suñu boroom nga ñaan lépp luy sutura te mu nga war loo ko ak tabaski nga ñaan suñu boroom defal la ko dina la jox ay teranga yu saawaan yu baawaan ba nga am loo jëndee xar muy turu yaa xaqiim boo koy wérd quatorze fois ginnaaw julli farata gune mais est ce que yaa xakimu nit ku ne am nga droit julli ba pare def ko est ce war a ndigal bala nga jël yaa xakimu parce que tur yàlla nag dafa foor xam nga ndigal mu ngi aju ca kakay joxe bu fekkee kaka joxe maye na ci ndigal génnee na sarax yam war a génnee amul danger ci nit nit lu muy def rek na xam lan la te mu am ci ndigal te El ku amul ndigal dina doon sa ko amul kilifa dina doon sa kilifa te ñun dañoo am kilifa. xam nga xam naa. dëgg la te fa ma wéeru lu ma neex sañ naa ko maye ci ismullahi alazim wallahi alazim kon actuellement nag may maye nga yaa xakimu ku mu neex nga def ci quatorze fois quatorze fois ginnaaw julli farata bu ne farata gu ne nga wér du ko quatorze fois ñaan suñu borom lépp loo xam ne farata la mm-hmm. ci tabaski mu warloo ko ak yow suñu borom dina la ko defal incha allah d'accord léegi bu fekkee ni def nga loolu ba yàlla defal la sutura nga fàggandiku xar mi pare maanaam xar mi avant nga koy jëfandikoo yan lañu ñu digale nit war na ko mën a def pour mu amal ko njariñ balaa ngaa yegsi ci xar mi mag ñi dañ ko daan jëfandikoo ci seen barke kenn du Cheikhu Tidiane Aji suñ borom lu mu leen daan dénk as tuut ci sutura liñ ci daan njëkk a def mooy dem jëndi paaka ndax xamuñu ndax dinañu am xar wala duñu am xar bala ñoo jënd xar paaka la ñuy la ñuy njëkk a jënd mais loolu xanaa mën naa dellu ci wóolu yàlla parce que ku jënd paaka moom war ngaa wóolu ni sunu borom dina la jox xar moo ko rendee xanaa ci lu wér ndax seen jëfandiku mhm. jëfandiku mooy yaa xaqim boobu ma la joxoon ne la dee ko wér du quatorze fois ginnaaw julli farata jëlal benn wàll ci paaka bi nga bind ci yaa xaqim denc barke alxuraan tabaski di nga am loo tabaske paaka boobu di nga ci rey xar paaka bi ngay jënd bind ci yaa xaqim di nga ci rey xar allahu akbar mbokk yi dégg ngeen ko mu ngi noonu lu bees tàq lu ñu jaaxal xam naa ni caméraman yii sax maam Cheikh seen xarit la mais bett na leen man de wax dëgg yàlla ak yonent maam seex man xaw ma ni nii la mel. yaa xakiimu ci benn côté paaka bi nga koy bind denc paaka bi danga ngay am xar. waaye ci charte nag. bu la borom dénkee xarum tabaski boo koy lawatal paaka boobu ngay jëfandikoo. bi nga bindoon yaa bi nga bindoon yaa xakiim ngay jëfandikoo ci tabaski bi. ah ñaan nga sunu borom jox na la wërsëg wërsëg woowu jënd nga ci paaka xanaa li des kay mooy wut xar mhm. duma fi ne naan ban xar moo baax ak bu baaxul waaye mag ñi daan nañ tànn xarum tabaski muy xar mu njool xal mu rafet béjjën mat sëg bëñi mat sëg tànk amul gaañu gaañu buy tee tax doo tabaski der bi amul gaañu gaañu xar mu rafet daal mhm. mag ñi daan nañ ko taamu xar moo xam ne gumbawul tëxul muumawul ndax njariñ ya ca ne ca tabaski mm-hmm. ah, bu fekkee fayee ni la yàpp ba rek lañuy ñuy foog ni moo baax ci tabaski mm-hmm. te yàpp ba amaana da ngay suural rek mm-hmm. ndax deret ja suñ ko moom addiya la li ci des nag ah yéen kilifa yi ngeen koy jëfandikoo rek foo ci laaj ci xar mi ci kattanu suñu borom li nga xam ne sañ nañ koo génnee ci barke mag ñi ñu maye ko ci fi mu nekk nii moom yow yaay wax parce que ñun xaru tabaski man man man boog damaa jàppoon ni da ngay jël xar mi rek jënd sa paaka ren di fees teg grillage bi commencé jëfandiku bu fekkee ne nag xar mi der bi yi karaw gi maanaam buum gi mhm. yooyu bu fekkee dafa am ay njariñ addina bi yow la ñuy déglu dañu bëggoon nga leeral ñu ko waaw ah, fa nga daaneele laay njëkkee buumu xar gi hmm. xam nga di nga dégg ñu bëri naan la buumu xar boo ko jëlee nga wut ci